mafatihal bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna insha Allah amin

ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا ما شاء الله وكفى بالله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى wër di wër ba gis Rabia gis ko ñu ko jam ay xeej caw ko ay jaasi ba mënatul dara ñu ne ko yonent bi moo waxoon ñu seet la Rabia ne leen yéen bu ma gisee xam ngeen ne pare naa ci àddina waaye li ma leen di wax bàyyi leen si xel bu ngeen sàgganee ba yéeféeri rey Seyduna Muhammad dootu leen jar dara ci àddina bi le miséricordieux, salut sur Mohammed son serviteur et son messager, ainsi que sur sa noble famille et ses fidèles compagnons. Nous, musulmans du Sénégal, sommes foncièrement attachés à la paix et à la concorde entre les individus et les peuples. Nous ne pouvons donc rester indifférents à tout ce qui peut constituer une source de tension et de conflit. Aussi, tenons-nous à exprimer notre désapprobation totale des provocations des autorités françaises à l'égard de la Ouma islamique. Prendre prétexte de n'importe quoi pour s'attaquer à celui qu'environ 2 milliards de personnes aiment d'un amour sincère et ah, oh, indéfectible n'est rien d'autre qu'une provocation. a vu naître, alors que partout à travers le monde retentissent les éloges à sa noble personne pour commémorer sa naissance salvatrice, nous sommes choqués des attaques ignobles contre la meilleure des créatures. Le sceau des prophètes envoyé à l'humanité tout entière comme expression et manifestation de la miséricorde divine. La France est connue pour sa tradition d'autoglorification, communément appelée la grandeur de la France. C'est à cette exorbitante perception de soi que l'on doit son vis-à-vis des autres, sa volonté d'assimilation qui est négation des autres, des autres cultures et des autres croyances. Elle s'inquiète de voir l'islam authentique, l'islam tel que enseigné et pratiqué par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa et ses fidèles successeurs reprendre petit à petit ses prérogatives dans les pays musulmans y compris dans les pays de son ancien empire colonial. Elle n'en peut plus, surtout, de voir l'islam, son credo, ses principes, ses prescriptions et son mode de vie, ses pratiques prospérer dans les coins et recoins du monde occidental et surtout d'une France manifestement sous le dictat du sionisme international. Alors, elle prend prétexte de tout pour sévir condamner, critiquer jusqu'au blasphème, ameuter l'Europe des concepts de son histoire auxquels elle donne une portée universelle. La révolution de 1789, la défense de la République et de ses valeurs, les Lumières, des faits et concepts qu'elle n'a jamais cessé d'essayer de nous imposer, d'abord par le fer et le feu, ensuite par la ruse et le santage, et à l'expérimentation desquels nous devons aujourd'hui l'essentiel de nos dispositions sociétaux. La défense de la République, l'attachement à la laïcité, à la liberté d'action, à la lutte contre le séparisme sont autant de faux prétextes pour vous à l'islam et aux musulmans de France, leur façon de s'habiller, de manger, d'éduquer leurs enfants et de pratiquer leur culte. Dans les médias, les institutions publiques, même dans la sphère privée, il ne fait pas bon d'être musulman en France et surtout d'être un musulman sincère, pieux et fidèle aux principes fondamentaux et aux prescriptions de sa religion. Caricaturer le prophète de l'islam, c'est faire preuve de manque de clairvoyance et de reconnaissance, puisque c'est toute l'humanité qui a bénéficié de son enseignement et de sa grande sagesse, ainsi que de sa guidance éclairée. C'est grâce à Sayyidina Mohammed que le soleil d'Allah brille sur l'Occident, pour reprendre l'heureuse formule d'Ingrid Ank. C'est à lui et non à vos prétendues lumières que vous devez vos succès scientifiques et technologiques, lui qui a balisé la voie du savoir dans lequel se sont engouffrés des millions de musulmans des siècles durant, répandant partout dans le monde l'esprit scientifique. C'est aussi à lui que vous devez le dernier message de sa version la plus œcuménique, l'islam, héritière, synthèse, parachèvement et perpétuation des valeurs panhumaines contenues dans les messages Aujourd'hui, le monde occidental est dans une profonde crise dont Ignacio Ramonet dit qu'elle le doit à l'effondrement silencieux de sa culture. S'il était moins frileux, il comprendrait que l'islam, loin d'être une menace, est la solution à la crise multidimensionnelle à laquelle il est confronté et qu'il approfondit jour après jour dans une malheureuse fuite en avant. S'il était aussi rationnel qu'il le prétend, il comprendrait que l'islam, loin d'être une menace, s'offre à lui comme solution pour renouer avec la transcendance, comme ferment de l'histoire. وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رسول الله صلى الله عليه وسلم sur lesquels l'islam exerce une très grande attirance malgré les nombreuses et gauches manœuvres d'endiguement de nos dirigeants. Que le salut d'Allah soit sur celui qui l'a envoyé pour prodiguer à l'humanité tout entière des enseignements salutaires la meilleure des créatures porteuses des plus hautes valeurs morales et spirituelles dont le monde a plus que besoin aujourd'hui et demain. Je veux nommer Sayyiduna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. صلوا ngeen jëf maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen balu àq di leen balu àq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala fay la ñu leen xam ngeen ne ñun julli si Sénégal ay nit yi jàmm lañu moo tax lépp loo xam ni jàpp nañ ni mën naa indi fitna ci àdduna bi loolu dañ ci taxaw. taxaw ci li indi jàmm mooy ñi nga xam ni dañuy tooñ te fan yi France jiite ko di tooñ ñaari milliards jullit ci àdduna bi loolu ñu fexe mu dakk wallahu la yuhibbu zalimin ñu tànn weer wu sell wallahu la yuhibbu zalimin weeru mawlidi nabi weeru Seydina gane àdduna weer woowu la tànn di tooñ jullit yi allahu akbar yéen kat xam ngeen ni wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yéen ma ne soomi annabi moo tax yàlla yónni Seydina Muhammad sallallahu ala Muhammad France li ko jaaxal mooy li islam di jollee jëm kaw di yokku ci adduna bi loolu boo ko tiital loolu moo tax ñu jël waxtu wu nekk di dal ci kaw diine lislaam jël ki nga xam ne mooy xayrul xam gën di bindeef ki nga xam ne bu loolu moom yàlla du bind dara ñu koy jéem a caricaturé lii lay waa France nee nañu dañuy jéem a défendre la république nee nañu nee nañu dañuy défendre la révolution de 1789 nee nañu dañuy défendre seeni valeurs nee nañu day descendre na dañuy défendre laïcité xam ngeen ni yooyu ma tudd yëpp France jéem la ko imposer ci adduna bi ci jaay doole loolu moo indi woon colonisation ñu coloniser ñu loolu moo indi woon njaayum njaani loolu moo indi woon yeneen moon moon yoo xam ni def nañu ko ci adduna bi te loolu juralu leen benn njariñ au contraire daf leen yokk toroxtaane li ñuy layee di wax liberté d'expression wala laïcité loolu moo tax ñu dal ci kaw lislaam soo solee muuru ñu ni doo jàngee ci école bi ñu jàqale école boo solee muuru ñu dal sa kaw boole nag ay xaj boo solee muuru dugg ci assemblée nationale bi ñu ni génn ci biti boo dee damay lekk lu dagan xalaal ñu ni doo ko fi lekke boo demee ci école bëgg sa yar yar say njaboot ci diine lislaam ñu ni fi defee loolu xam ngeen ni soo bëggee jaamu yàlla sax ñu la doo ko fi jaamoo. qul yaa ayyuhal kaafiruun caricature yi ñu jël. laa abudu maa ta'buduun di jéem a caricature yi yonent bi xam ngeen ni loolu ak goree gi la ci ñoom waa France. ndax kat adduna bi yëpp daa wax adduna bi yëpp amee nañu njukkal Seydina Muhammad amee nañu ko njukkal ci ay jàngaleem rawatina nag Occident boobu France boobu. yéen ñëpp xam ngeen ni islam def na huit cent ans juróom-ñetti téeméeri at ci en Europe islam moo leen jàngal suñu lycée islam moo leen jàngal science islam moo leen jàngal technologie islam moo leen jàngal xarala yi ba ñu jàngee ba pare defu ñu lenn lenn lu ñu lakk bibliothèque ya pour yow a wane ni xam-xam bi ñu ngi ko jëlee feneen fu dul ci islam. moo tax li Hindrich Hunt wax le soleil dans la. brille sur l'Occident wallaahi dëgg la Muhammad moo leeral Occident islam mooy tënk valeur valeur doomu aadama yi gën a kawe islam moo ko tënk te loolu mi ngi ci njàngale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokku jullit yi euh, jot na jot na pour que Occident jot na pour que àdduna bi xam ni islam bi nga xam ni dañ koy xeex islam boobu njariñ la ngir ñoom bu ñu comprendre woon islam intégré islam jëfe ca sa daan islam ak yokkule ak yokkute lay doon ci ñoom ak jëm kanam lay doon ci ñoom loolu moo tax euh, mbokk yi euh, ñi leen di gërëm di leen sant ci wuyu si bi di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal yàlla defal jàmm yàlla yàlla fay allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam